billahi min alsheytaan arrajim bismillahi arrahman arrahim wa sallallahu taala ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xayri qadimihi wa jacal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki julit yi mbokki taalibe yi ñëw leen di nuyu di leen ziyaar di jiital ci nuyoo bi Mawlana Cheikh Mouhamadul Muntaqa hafizahullah wa raahu allahumma amin ak mbooloom njabootuk Serigne Touba yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci dëkk bi ginnaaw loolu ñuy ziar mboolem yi nga xamante ni ñoom ñoo topp jataay yi nga xamante ni daaira muqaddamatul xidma ñoom ñoo koy taxawee muy ay waxtaan yoo xamante ni ñu koy waajalee bis mu mag bi nga xamante ni lépp lu ñu am ci moom lañ ko amee muy 18 safar mu nekk ay waxtaan yoo xamante ni mel na ni tey jii moom mooy jataay bu njëkk bi mu nekk ay jataay yoo xamante ni dañ koy waajale màggal gi ñuy ñaan lépp loo xamante ni wax nañ ko ci lu baax rek dal nañ ci làq ngërëmu Sëriñ Tuubaa jataay bu njëkk bi nag ñu ubbi ko ci tomb boo xamante ni tomb bu am am solo la tomb bi nag mooy tomb boo xamante ni tomb bu mat a waxtaane la ndax ku ne xam na ni lii ñuy waajal muy màggal Seexul Xadim gi li ko waral mooy tukki bi nga xamante ni sëriñ bi tukki woon na ko mel na ni bu tukki bi amul woon mel na ni xéewal gu gi ñu am duñ ko am ginnaaw dogal suñu borom bi subhanahu wa taala mel na ni ci biir tukki boobu am na loo xamante ni am na ko muy jeexit joo xamante ni bi fi sëriñ bi jógee am na ko ci biir mut gi ndax ku ne xam na ni bi fi sëriñ bi jógee am na jaaxle gu mu defoon ci mur yi am na jaaxle gu mu defoon ci mag ñi nga xamante ni ñoom ñoo ànd ak sëriñ bi ndax ku ne xam na ni sëriñ bi lu jiitu muy ñëw ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon ci réew yi mooy ñi nga xamante ni ñoom ñooy tubaab bi ak buur yi waaye sëriñ bi moom bi mu ñëwee indi lislaam ju set wicc mel na ni mag ñi dañoo nokkiwaat dañoo amaat yaakaar amoon amoon lépp waaye bi yàlla dogalee tubaab bi jël sëriñ bi ba génn ko réew mi mel na ni nag mag ñi amoon jaaxle bu mag a mag a mag loolu nag jaaxle googu nag mel na ni am na jeexit bu mu def ci biir murid gi waaye def ko ci biir taalibe ci mboolem jullit ñi ndax sëriñ bi moom ku ne ni jullit la fi nekkaloon ko fi jëlee mel na ni am na jeexit bu mu def ci lislaam bi loolu nag duñ ci sori ki nekk sama loxol càmmoñ muy sëriñ Cheikhouna Bousso di koo xamante ni ku ñu miin ci barab bii la waaye ku ñu miin ci dëkk bi la kenn du ko présenté waaye kenn du ko présenté tamit ci jataay bii ñu fas yéene ànd ak ñun kon su ko defee du ñu sori ñu bokk ko teewlu kon sëriñ Seexuna bismillah bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiyaai wal mursalin سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإيمان وإسلام وإحسان إلى يوم الدين ginnaaw bi ñu sante sunu boroom subhaanahu wa taala julli ci ab yonentam sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu jullit ñëpp nuyub lislaam di assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di tàmbale nuyoo bi ci sunu mbokk mii nga xam ne moom lañu ñu jataay bi di sëriñ May Jang di ndokkeel nag ñi nga xam ne ñoo taxawal jataay bi di waa daaira Muxaddamatul Xidma mu jataay bu am solo boo xam ne yàgg nañ ko ànd ak ñoom bu ñu jubee bis bu mag bii nga xam ne ñu ngi koy séentu di màggalu Touba kon ñu ngi leen di ziyaara tàmbalee ko ci njiit li nga xam ne moo nekk ci bopp bi di sëriñ Afiya Buso ak mbooleem membre yi daayira bépp di leen ndokkeel di rafetlu bu baax taxawaay yi nga xam ne ñu ngi koy taxawee ci jumaa ji ci jamono bii ñu toll ak yeneen jamono yi mm-hmm. muy taxawaay xam-xam yu am solo ak yeneen ak yeneen di ndokkee li nag murid yëpp ci weeru tedd wi ñu nekk di ñaan borom bi subhanahu wa taala ñu àgg ci bis bi nga xam ne moom la ñu séntu tey na ko borom bëggee sunu borom defal ñu taw yi ñu mën koo taxawee noona ba làq ci ngërëmam ni ko sëriñ may waxe tomb bi ñu tànn ngir ñu waxtaan ci tomb bu am solo la ndax ni ñu siyaaxa mawdu bi day mel ne <clears throat> day am ñaari sens yoo xam ne leen lu ci nekk dana mat a bàyyi xel ndax baatu adar biñ jëfandikoo mën nañ cee jublu li sëñ Mbaye Dieng wax léegi muy jeexit ji nga xam ne li ñu tuddee émotion bi nga xam ne amoon na ci yoon wi ginnaaw bi fi sëriñ bi jugee waaye mën naa tekki nag ay aadaar yoo xam ne tukki bi ci boppam jural na ko yoon wi jural na ko yoon wi kon day mel ne du tënku rek ci jaaxle gi ñu amoon ginnaaw bi fi sëriñ bi jugee waaye jëmmi tukki bi ci boppam impact bi mu am ci yoon wi maanaam li nga xam ne moom la ci yoon wi jëlee ci ay njariñ hmm. nga xam ne bu dutoon ak tukki bi loolu du am loolu yi dafa bokk ci aadaar yi bu njëkk bi nag muy jaaxle gi nga xam ne daanaka sëriñ bi <coughs> tënk na ko. Mhm. te mooy ginnaaw bi fi jëlee sëriñ bi yoon wi jaaxle nañ ko loolu moom du nekk xarwa ci ko xam ni yoon wi sosoo ndax même bi sëriñ bi demut mutit ñi ngi woon ci ak jaaxle kon day doon jaaxle gu dolliku. <coughs> Mhm. ndax sëriñ bi moom ñoom amoon nañu problème ci barab bu ñu nekk. amoon nañ jafe-jafe ci ñu ñuy jaxasool ndax ñi sëriñ bi jamonoonteel diggante ceddo yi ak doomi soxna yi ak colonialiste yi kenn ku ci nekk gàllankoor la defile bu nekk ci kanam sëriñ bi ngir gàllankoor ab liggéeyam rawatina nag barab bi nga xam ne fi la jógee dem ci tukki bi muy jolof ndax sikk nekkul ci ne bi muy waaj ngir ñëw fi bi mu ci diisoog sëriñ bu soobee mi nga xam ne mooy nijaayam moom gisutoon dem gi mhm. te ñàkk gi mu ñàkk gis dem gi jolofit xam lam fay fekk rek moo ko sabab mhm. xam na ne ñam fay fekk doomi soxna yam fay fekk ak ceddo yam fay fekk fiiraange nekk na ci seen xol fiiraange goo xam ne mënuñoo muñ wooteb sëriñ bi mhm. ànd ak loolu nag fekk na boobu colonialiste yi ñi ngi ci réew mi bëgg a tansiir waa réew mépp bëgg a def ñépp ay nasaraan ci seen culture ci seen civilisation nga xam ne ñoom installé nañ ba noppi. kon jafe-jafe yooyu sëriñ bi mi ngi doon mhm. jànkonte moom ci liggéey bi. Mhm. daanaka ci la ci la ci la li xew juddoo muy ñi nga xam ne mënuñ ko muñ di ko tuumaal ak di ko ruuxaleeg tubaab bi ba lii xew-xew mu tombeek nag dogalub sans boroom bi nga xam ne. fekk na sëriñ bi am lu mu bëgg ci boroomam lool la ko ko suñu borom di jaayee nattu boobe ci lii rek la mën a mhm. ndax bi fi sëriñ Maam Mor Anta Sali jugee ba sëriñ bi ñëw Mbàkke Bawal gi nga xam ne dëkku ay maamam la woon fekk fa ay bokkam foofu la njëkke am jafe-jafe ngir limu indi indil du luñ miin ñoom li suñ boroom def ci moom bari na ci bokk yi ñu ko ko nangulul looloo waral ba fa sëriñ bi dëkkee diggante bu gàtt jafe-jafe tàmbulee am ci diggante ñi ànd ak sëriñ bi ak bokk yam fa fekk mm-hmm. xam naa du jar dugg ci détail yooyu waaye li ci mat a tënk rek mooy ñi sëriñ bi fekk si moom ay bokkam lañ yoo xam ne dañ ko bëgg a jàppe mbokk rek ñi ànd ak sëriñ bi nag jàppe nañ ko noo xam ne ñoom it liñ gëm mooy keneen ku dul ñoom it ni jàppe sëriñ bi nga koy jàppe loolu nag moo leen indil ak ci seen biir ndax ñoom niñ jàppe sëriñ bi pour ñoom ku dul ñoom noonu nga war a jàppe sëriñ bi te ñee moom dañoo gis ne sëriñ bi seen mbokk la mu fi ñëw rek ñu war ko jàppe menn mbokk jafe-jafe yooyu nag moo jur sëriñ bi jógee mbakke dem sanc Daaru Salaam bi mu sancee Daaru Salaam it diggante ba mu fa nekk xëy na amul jafe-jafe ci ku koy gàllankoor ci wàllu googu waaye nag nit ñi koy dikkal jaxasoo bi mbooloo mi di jaxasoo ak ñiy jàng ak ñi ñuy tërbiya te loolu du jubluwaayu sëriñ bi loolu moo waral mu jóge waat Daaru Salaam sanc Tuuba mhm. ba tey loolu it moo ko jëlee waa Tuuba sëñ Mudu Lamin nettali na ko nee na sëñ Mbàkke bu soo ko ko nettali loolu moo jëlewaat sëriñ di Touba jaxasoog ñaari mbooloo yi jëlale naa nag ñuy jaxasoog koo xam ne bukkul ci kenn ci ñaari mbooloo yooyu bi mu demee Jolof nag foofa it fekk na fa loo xam ne bàyyiwu ko tuuba ndax Touba dëkku boppam la boo xam ne da ko sanc ci ndigalul yàlla ceddo nekku fi doomi soxna nekku fi lenn lu koy gàllankoor ci wàll googu nekku fi waaye nag ñi daw wuyu si woote bi am na ci ñoo xam ne a ahlu tarbiya lañ ahlu taalim sëriñ bi bëggul ñu jaxasoo loolu moo ko fi jëlee bi mu demee Jolof nag dafa fekk ay doomi soxna fekk fa ay ceddo loolu nag indi jafe-jafe ci nekko ko sëñ bu soobee xalaate woon waaye fekk na boobu sëriñ bi moom ni ko sëñ Mudu Lamin nettalee am na ay objectif yoo xam ne ay ambition yu mu am ci tukki bi yoo xam ne ci la aju te ambition yooyu mu ñàkk koo réaliser nee na fab xeej di ko ko jam wala dagg ay baaraamam moo ko gën a woyof ci moom fekk na sëriñ bi dem rek la gis te it dem na ba àgg ci àgguwaay boo xam ne gis na ni moom waaj ba noppi delluwaat ginnaaw nawun min al irtidaat noonu la ko sëriñ mu Lamin waxee xeetu euh, génn ci dugg ci diine bi rek nga génnaat ci soriwut ak moom moo tax sëriñ bi engagé wu rek dem Jolof foofe nag diir bam fa nekk yàggul mhm. lii xew-xew loolu day wane ne kon jafe-jafe bu mett lañ fa doon dund biñ koy jël di ko yóbbu fekk na booba sëriñ bi tàmbali na liggéey boo xam ne sotteegul ak njabootam muy doomi boppam yi taxawaguñ ndax ay ndaw lañ yoo xam ne ñu ngi toll ci jàng jàngale gu leen. ñi nga xam ne dañoo ànd ak moom it donte faw ju mu njëkk bi wala arrailul awal moom yeewi na leen ndax Daaru Salaam fekk na mu yeewi ñu bari ci mag ñi waaye nag booba liggéey bi da doog a tàmbali ndax ñi ñëwaat ginnaaw bi ñoo gën a bari ñooñu sëriñ bi nag nekk ci dynamique boo xam ne doomi soxna yi mënuñoo supporter loolu liñ gis rek mooy kii dafa bëgg doon buur walla dafa bëgg leneen loo xam ne daal méngoowul ñoom ak li ñuy dund njaxas yi tàmbali mu dëppoog dogalub yàlla bi ba ñu jël sëriñ bi jële ko fi mu doon nag jaaxle gu mag ci yoon wi ndax ginnaaw sëriñ bi moo doonoon ndër lay li ci wàllu xam-xam ci wàllu baatin ci wàllu résistance. lépp moo nekkoon ci seen kanam. biñ koy jël si bi bi ndaw yi di ñëw mu yónni ndaw ndaw li mu doon yónni nag muy maam Thierno Ibra Fati loolu dañ ciy dégg ne booba dana woyofal tuuti jaaxle gi ndax booba teel na ñoo xam ne sëriñ bi moom am na ku ko mën a wuutu ci yu bari ndax koo xam ne dañoo wax ne dañ la jàppee ku attaqué tubaab bi guerre mu di la woolu nga mën a jël ndaw mu taxaw sa place kooku am na mustawa bu ñu soxla ci moom ci wàllu xam-xam ci ak ñaw ci fit ci mën a jëflante. Hmm. maam Thierno doxal loolu dem ndar dikk delluwaat taseeg tubaab bi maslaa ñoom ba jël si sëriñ bi ñëw ànd ak moom mu fekk leen jeewal loolu gis nañ ne kon léegi moom dana mën a mu daarante ak ñi nga xam ne ñoo jëflante ak moom ginnaaw sëriñ bi hmm. waaye bi yàlla dogalee ñu jël sëriñ bi nag ba exilé ko. ak jaaxle gu métte métti gaar na yoon wi la sëñ bi doon dénk maam Thierno te ba Bachirou nettali ko moo lay wane booba am nañ jaaxle ci fan lañ war a nekk am nañ jaaxle ci lan lañ war a nekk waaye sëriñ bi moom orienté na leen fa ilayka al ahlu wal iyal ne ko njaboot gàngoog li ma lay dénk mooy alayka bil ilmi wa taalimi wal xars jàng ak jàngale ak bay fu mu mën a jàppandee nag kon gis na ne jolof gi ñu nekk moom sëñ bi gis na ne mën naa am li fi doon jànkonteel ñoom jànkonte fekk lu tax duñ mën a continuer ci loolu. Mhm. ba nawet ba wàccee la fa maam Thierno jóge mhm. ak njaboot ba dellu si waat Mbàkke Bawol ñi nga xam ne ñoom la sëriñ bi yeew wi njëkk muy dem jolof ñooñu it jàpp nañ ci liggéey bi moo tax toujours ñu bari dañuy wax ne sëriñ bi moom kenn taxawu ko ci liggéeyam bi dëgg la tukkib géej ga moom lam fa liggéey moom dong ko liggéey. waaye ginnaawam nag dafa bàyyi ñoo xam ne moo leen waajal ñu téyel ko ko ba mu dellu ndax la doon dundal njaboot gi diggante sëñ ma ndumbe maam Cheikh Ibrahima Fall ak seenu njaboot ñoo ko doon liggéey ñi fi bàyyi woon it bi mu dellu see fekk leen alxuraan nekk ci seen i dënn ñu am xam-xam maam Thierno Ibra Fati sëñ Mbàkke Buso sëñ Daam Abdourahman loolu ñoo taxawee loolu boole koog nag di sensibiliser mbooloo mi di ko defal ay duaa ay ñaan di ko wàcceel kaamili alquran di ko bàyyi xel jamono ju nekk lu nekkit nag jànkonte nañ koog moom ginnaaw sëriñ bi ndax njëkk njëkk sëriñ bi dem ginnaaw ñoom daan nañ leen dóor ngir sëriñ bi di leen génne di lakk seeni kër ba sëriñ bi di leen jox misaal di leen wax ne saxaaba yi ñooy seeni baay ci diine te lu ngeen dañ dañ nañ lu raw lool mm-hmm. ginnaaw sëriñ bi dañoo continuer jafe-jafe yooyu di am waaye jaaxle gi nga xam ne mooy jaaxle gi gënoon a màgg ci jaaxle yi mooy bi ñu xëyee xëy jot benn xibaar ci ñu ne leen sëriñ bi moom tubaab bi am na ci moom la mu bëggoon ba daanaka ñu ti saaro kenn ku nekk bëgg teg sa një nga xam ne soxna su tedd muy soxna Faati Isa Jóob ca ñaw ga ak njàmbaar ga nga xam ne daanaka ma mënees na koy xoolee sayyidatuna Khadija ci ni mu doon dellu see yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu jógee xaaru Hira taseeg sayyiduna Jibril alayhi salaam moom moo leen delloo si ndax moo delloo si maam Ceerno Ibra Faati ne ko yéen lu leen dal sëriñ tuuba nee na buñ may dugal ci biir bàmmeel moo may nangu ci ay loxoom te wóor na ma ni lu wax dana ko def kon buñ nee leen génn na àdduna ngeen di ko gëm loolu lu leen dal dana ma jaaxal ci la mag ñu bari dellu si waate loolu nag information la boo xam ne daloon na yonente bi alayhi salaam. ghazwat Uhud ibnu a déclaré woon na ne yonente bi sallallahu alayhi saye waaye biñ demee ba ci biir gis nañ ne loolu moo xoon wérut te booba it am na ci saxaaba yi ñu tàmbalee découragé waaye bi ñu xamee ne wérul nag dañoo daal di jaajowaat mu mel na nag ñii mag ñi àndoon ak sëriñ bi biñ yégee ne loolu ñu leen wax ci sëriñ bi it wérul loolu delloosiwaat na leen ñu dajale waat seen kattan boolewaat seen boppu waaye nekkaat ci seenu jaaxle ndax jaaxle mënta wees moom may dem moom sëñ bii dem moom pour moom njaboot gi tasaaroo na ba noppi kër yi tas na ba noppi xusuur yi xalat wal ahlu an yi kon moom li muy bàyyi ginnaaw daanaka tasaare nañ ak njabootam. Mhm. waaye sans borom nag téyel ko ko ci ndimbalul mag ñoo ñi nga xam ne ñoom la yeewi defar leen te booba duñ ay mag xëy na ci jamono booba la waaye booba duñ ay mag ndax maam Cheikh Anta ca la bokkoon te booba ñaar fukki atam bu tegee lam teg bëriwut mhm. ndax moom bi ko sëriñ bi di di di di di wàccee fukki at ak juróom-ñett ci la toll. mu yëkkati Daaru Salaam jox ko boole ko ña fa nekkoon kon booba ñoom duñ ay mag. xay na juróom-ñaari at yi mu defaat Touba boo ko ci génnee vingt cinq ans du ko sori te ca ña woon liggéey bi ca la bokkoon kon mel na ne amoon nañ ak jaaxle waaye nag dañoo dañoo wéeru woon ci yàlla ak it wóolu ki dem ci ne lu leen wax dana am te dig na leen ak dellu si ndax bi muy dem dénk na leen te it wax na luy tegtale ne moom day liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye day dellu si waat ci njaboot gi kon moom mi doon dem mën nañu wax ne bu jaaxle day am moom moo gënoon a amuk ci ñim wan ginnaaw waaye ñi mën ginnaaw moom wóolu nañ ko wóolu goo xam ne lu mbir métti métti xam nañ ne daañu sonn ngir li ñu nekkee même bi fi sëriñ bi nekk ñu ngi ci doon am ay jafe ngir ñàkk a ak gisiinu waa réew mi ci jamono boobu loolu indi woon na jafe-jafe waaye nag ci loolu la njàmbaaroog maam Thierno feeñ mu taxawu njaboot gi ba bi sëriñ bii dellu si ñim fi bàyyi woon ñu ci bari mokkal alquran bi sëriñ bi dellu si kenn ku nekk fa nga nekkoon nekk fa ci ndigalam bi sëriñ bi dellu see fa la fekk teewul nag diirub li nekk ci tukki bi moom it mi ngi leen di yónnee ay rasail di laajte njaboot gi kenn ku nekk ci loo nekk mbaa ñi ngi ci jàmm di laaj liggéey bi fu mu toll di leen nemmeeku nga xam ne ku nekk da ngay ne sëriñ bi am na ak nameel ci yow sëriñ bi namm na la ngir gëj na laa gis ñu ne ci loolu nag nekk ci ba ni sëriñ bi dellu siwaatee am ci ñooñ gàttandu ji nañ ko ndakaaru am ci ñooñ moom dañoo toog rek fa leen dëloon di ko xaar ba bi sëriñ bi ñëwee gisu leen muy jàmbat ne ñoom xanaa dañ ko nammutoon yónnee ndaw woolu leen ñoo xamal ko ne ndigal lañ jotoon ci toog foofee di ko xaar te jotaatuñ ndigalul yëkkati ko loolu lépp na di ay leçon yoo xam ne it lu ñu war di tiire ci ñoom la ndax ku mel noonu nga xam ne sëriñ bi ñoom amuñ ci moom sago xëy xëy rek ñu jël si ko gisatuñ ko déggatuñ ci moom dara léeg-léeg rek ñu jot benn bataaxal bu bàyyi ko ci moom mu def juróom-ñaari at yu manqué tuuti dellu si ñu am sagos mën a toog di xaar ndigalam loolu it meneen mbir la moo xam ne lu mat di bàyyi xel la kon jàpp naa ne sëñ may euh, jeexiit jooju nga xam ne amoon na ci njaboot gi jeexit la joo xam ne mooy jeexitu ku miin waajuram ba yàgg mu xeexee gisatu ko ku miin ab sëriñam ba yàgg mu xeexee gisatu ko la ca métti nag mooy ñàkk gis gi xam nañ ni ay nit ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko exilé ci kaw jaay doole waaye nag ñoom xam nañu dëppoo naag dogalub yàlla boo xam ne am na lu muy liggéey te ci tukki bi la ko mën a amee loolu bokk na ci lu koy woyofal bu fekkonte ne tukki bi day day mbir moo xam ne dañ ko exilé nii rek amul dara luñ ci war a gañe su boobaa dana metti lool waaye ama bay chachine ci jàkkee daaru xuddoos ji fi la dugg xalwa gise feek rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jaayanteeg moom ci la mu bëgg waxanteeg boroomam subhanahu wa taala siñeenteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam contrat boobu yi ci la jógee nag Touba dem Jolof sanc ko kon moom bi tukki bi di am sëriñ bi xam na ne am na lu mu soxla loo xam ne ci tukki bi rek la ko mën a amee. Mhm. bu ñu duggee ci aadaar yi nga xam ne tukki bi indil nañu ko. maanaam jeexit a ngëneel yi nga xam ne tukki bi indil nañu ko. Mhm. daañu gis ne moom daanaka mën nañu wax ne lim am lépp ci tukki bi la ko amee. Mhm. lim am lépp. ndax lu ko jiitu. day mel ne jàngalekatu alxuraan la woon cheikhul murabbi rek la woon waaye genn ndomb ak tànk wala jenn daraja ci digganteem ak boromam yoo xam ne mën nañu wax ne booba sëriñ bi amee na ko daanaka mënuñ koo xam ci la doone xaritub yàlla waxal na ko boppam ci la doone soppeeb yàlla ci la doone jaamub yàlla mu sell ci la doone liggéeykatub yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci la doone ab xaritam ci la doone ab soppeem ci la doone sax dëkkandoom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam même nee na ci jeexit ci tukki bi ci boppam la ko suñu borom defale mu doon gan goo xam ne jamono bu nekk muy mën a seeti yonente bi di ko gisee na mu ko bëggee waaye ci tukki bi la ko suñu borom joxe alquran ak barkeeb alquran ak leerug alquran ci tukki bi it la ko suñu borom joxe wird wii nga xam ne mooy al awraat yi sëriñ bi di wax nga xam ne moom buñ ci accès moom it am na ay détails mm-hmm. ci tukki bi la ko joxe it wirdul maaxuus wii nga xam ne moom la jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy wirdu boppam boo xam ne mësta jaar ci loxoy kenn ci siixa boobu waaye am na nag yeneen i aadaar yoo xam ne aju na ci tukki bi nga xam ne moom sëriñ bee ko jago yooyu nag bu ñu yooyu nga xam ne ci tukki bi la ko amee ñun luñ jëriñu ci sëriñ bi rek ci yooyu lañ ko jëriñoo kon day mel ne da ciy am ci aadaar yooyu moom yoo xam ne day wàcc ci kaw sëriñ bi am ci yoo xam ne nag directement day wàcc ci kaw mbindeef yëpp sëriñ bi bind na ko ci barab yoo xam ne daañ ci jukki ñaari bayit yoo xam ne buñ ci àggee mën nañ cee taxaw liñ soxla ci njariñ yooyu yëpp dana ko làmboo mhm. kon maa ngi jàpp ne mhm. mën nañu tënk ci ne daal mhm. bi ñu fi jëlee sëriñ bi yóbbu ko murid yi jaaxle nañ waaye nag dañuy wax ne ida zahara sababu zaala al ajab mbir bu la yéemee rek danga nga xamul sabab ba waaye boo xamee sabab ba dootu la yéem te mag ñi li tax sëriñ bi dem am na ci ñooñ sëriñ bi yéral na leen ko ba xam nañ ko tumuraanke geek la sëñ bi dajak ñoom li ñuy jànkonteel loolu lépp dara du leen ci yëmati kon loolu dana doon metit dana doon jeexiit waaye nag dana doon luñ mën a muñ ndax xam na natax ije nga xam ne cay topp mm-hmm. waaw kon de xanaa ko defee nag bu dee avar yii nga xam ne moom laa doon wax léegi yooyu dafa bari suñ ko bëggee lim dana naqaree lim waaye nañ ci tënk ñaar mooy sëriñ bi ci boppam am na ci loo xam ne waxal na boppam ne ci tukki bi la ko amee junj naa ko léegi doon jaamu bi yàlla bu sell nee na ci la doone aarif billahi ci tukki bi la ko doone mhm. nee na ci la amee wusul ci digganteem ak boroomam na ci la àgge ci yàlla nee na ci tukki bi la amee it li ñuy tudde xaqul yaqiin nee na ci tukki bi la nekk xillullaahi ci la nekk xibbullaahi jëfandikoo na ci it xalilullaahi ak xabibullaahi lenn lu ci nekk ci tukki bi la ko amee loolu nag buñ delloo ci fi muy waxe ne saadati bi gayri maxwin kutibat wa kawniya al abd al xadimi xat sabat dahara kawniya xillu rabbi hibba lahu wali yuwassilu al ahibba samag doon xillullah loolu mi ngi feeñe ci tukki bi nga xam ne maa ko doon tukki waaye sabata kaw nii xalilullahi fee dana zahara kaw nii xillullahi hmm. fii mu ne sabata kaw nii xalilullahi kon xillullahi habibullah xalilullahi lu ci nekk ci tukki bi la ko amee mu tegoon ci rabbi hibba waaye billahi sarmadan habibullahi hmm. kon danay jëfandikoo ay waxiin yu wuute waaye leen lu ci nekk nee na ci tukki bi la ko suñu borom defalee waaye ci tukki bi la nekk it asnal xadim maanaam mbooleem ñu doon liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sunu borom def ko ci mu doon ko ca gën a yëkkati ko ci tukki bi la doone xaritub bi sallallahu alayhi wa sallam ci la doone ab soppeem ci la doone ab dëkkandoom ci la doone koo xam ne yonent bi daf koy tëbb ay karaamaam jamono bu nekk yaa rabbana aw sil salaamay al ila alladi sirtu lahu xayra alxadim faraxtuhu bi xidamin la thaniya laha min alxidami laysat faniya nee na bégal naa yonente sallallahu alayhi wa ci ay liggéey yoo xam ne mbindeef mënatu koo bégal mbég mu tol noonu ci liggéey yu mel ne liggéey yi ma ko liggéeyal muy liggéey yoo xam ne nag du jeex ba faw man danna annahu yakunu abada yurdihi billadi ka xidmati bada nafaytu dannahu bi annani alxadim bima wana an mislihi kullu xadim nee na koo xam ne kii jortu na ni ngërëm li ma am ci liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xidma bi mooy tu alxaybatul bahriya moo tax mu jëfandikoo baatu xidma tukkeem boobu nee na liggéeyal naa ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba làq ci ngërëmam loo xam ne ku jortu ne mënati nga am ngërëm lu mel noonu ci liggéeyal ko sa njortu loolu maa ngi koy dàq maa ngi effacé sa njort loolu ci ne la liggéeyal naa ko loo xam ne kenn ku ko mën a ti lu mel noonu ci mbooleem ñi nga xam ne ay xuddaamam lañ amul daal di ci tegaat ne lam yax fa kawniya xalilul muntaqa wa xibbuhu xadimuhu maa tuqa ci la nekk xalilul muntaqa xabibul muntaqa xadimul muntaqa lépp ci tukki bi la ko amee waaye ci tukki bi wax nañ ne ci la waxee ne ci la doon koo xam ne jamono bu nekk saa bu bëggee gis rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man koo gis ndax boo xoolee daaru xudóos la jëkk a moom foofu mooy départ bi sëñ Moussa kaa ngi nettali ci néegum Dakar bi gisaan na ko fa mhm. naka noonu euh, yeer mi ñu ko gasaloon ci Gabon te sëñ Abdul Ahad daan ko nettali gis na fa ak rasulullahi sallallahu alayhi wa loolu it sëriñ bi day wax ne yazuruka minni haysuma kuntu yaa muhi fuaadi wa ruuxi bil busharati sa tey ndax xam ne jamono bu nekk ruuxam ak xolam day ziar yonent bi sallallahu alayhi wa waaye loolu mi ngi ko amee ci tukkibi waaye ci tukki bi la ame doon dëkkaale bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yujaawiruhu kulli xadiman lahu bihi bihi surtout saa qurbin wa qad kuntu saa na'i sori woon naa ko lool moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye mujj naa jege ko lool nag te ci tukki bi la amee loolu ci tukki bi la dem ba yonent bi alayhi salaatu jegeel ko boppam ba mel ni ci ba mel ni moo ba mel ci yonente bi ni saxaaba yi mel ci moom ni yón ni ñooñ yonente bi mel ci moom saxaaba yi mel ko ci moom loolu ci tukkim bi la ko amee yusayiru ni kal ali wa sahbi sarmadan wali qaada sirran gaaba an xayrihi lmuhyi kon bari na yum ci wax yoo xam ne ci tukki bi la ko amee waaye alquran it ci lañ ko ko joxe nusi ali nuuru lisaani wal kitaab azmaana xidmati la daa ahlil kitaab alxidma mooy tukki bi kon da koy tuddee xidma lu baree bari ci tukki bi it la jotee wirdu yooyu nga xam ne man ñaare ni may gise sëriñ bi day jëfandikoo baatub al awraat as salaasa xam nga wirdu saabu bu bu ko yonente bi alayhi yëkkatee jox ko wali yu wam ko jox dañuy intisaab turu wirdu wi ca kooka mm-hmm. sëñ Abdul Xaadir Jaylaani boo gisee ñuy wax euh, wirdul xaadir moom moo ko talaqi ci yonente bi sallallahu alayhi wa mm-hmm. ñu di ko ko intisaab si mm-hmm. ma Tidiane Sharif mm-hmm. moom moo talaqi wirdu wi ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Abul Hasan As-Saasali naka bi nag nee na ci tukki bi ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jox ñetti wirdu yoo xam ne amul benn wasita digganteem ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam léegi nag man gis naa ne kon wirdu yooyu même siyax yi bu fekkente ne wenn wirdu yi siyaxa bi dafa nekk tibqal aslu ci al wirdu al xaadir yi man du tax ma tuddee ko damay jàpp ne kon awraat yooyu mën nañ ko tuddee al awraat al xadimiya ndax moom ci sëriñ bi la yonent bi moo ko jox directement jarul ci kenn kon waruñu jël intisaab boobu di ko wéeraat feneen ki ko jële ci al xaadiriya moom wirdu xaadir la yor ki ko jëlee ci at tijaaniya wirdu tijaan la yor ki ko jëlee ci as-Sazaliya wirdu Sazali la yor waaye ki ko jëlee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom mën nañu intisaa wirdu bi ci moom kon ñetti awraad yooyu yu mu jëlee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne benn bi siixa bi day dafa dëppoo ak siixab alqadri benn bi dëppoo ak tijaan yi benn bi dëppoo ak xëy na tombe na waaye nag mën nañ ko bañ a tudde noonu kon mën nañ ko tudde al awraat al xadimiya muy ñetti wirdu yoo xam ne yonente bi alayhi salatu salaam moo ko joxal boppam ne moom muritani la jote muy al maaxus min allahi bi wasitati rasuli loolu ba tey foofu la ko jëlee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam na ni ci tukki bi it la ko suñ borom defale mu mel ne jant mu mel ne jant ci naka ci yëkkatiku daraja ak tisaaroog njariñ kon xam na ne jant moom bu dee leer liñ xamagun ci luy leeral jant moo ci gën a leer liñ xamagun ci luy leeral jant ci gën a leer donte nag du fu jant fenk rek ëmb a gox yëpp gox ba mu tiim moom dana ko leeral waaye yeneen yi ci topp muy biddiw weer xam nañ ne fu jant bi fenk yooyu suuf kon moom leeraayam nee na ci tukki bi la mujjee mel ni ab jant waaye daraja ju yëkkati ko jiit ci tukki bi la ko amee ba mel ni ab jant njariñ lu tisaaroo ku ne xam na ne jant li mu làmboo ci njariñ kenn xamu nu mu ba ci mbay mii ñuy jariñoo rek fii mu ne dañuy wax ne bu bu tawee ba noppi jant bi nga xam ne mooy génn mooy liggéey ci gàncax gi lii tax mu ñor bu doon taw te jant bi du génn doo am meññet bu doon taw rek loolu moom ku dul baykat du ko xam waaye bu doon taw rek te jant du fenk doo góob kon feeñu jant bi ci la njariñul mbay mi di bàyyi ko sëriñ bi nag njariñam lu tisaaroo loolu nee na mi ngi ko jële ci tukki boobu loolu Cheikh Saadu Abi ca abiyaatam ba mu koy tagg xaw na ko caa junj wa badrin munirin moom da koo nuróoleeg weer wax weeru leer waaye nag xaaba fil garbi maanaam biñ koy yóbboo mu fàddu ci soow bi summa laaha mil garbi chamchan rifaatan wanti intishaara mhm. bi mu dellu see nag dafa mel ne ab jant ci yëkkatiku daraja ak euh, bari njariñ tisaaroog njariñ nee na ci tukki bi it la ko sun boroom defale ñu di ko limaale ci ahlu badrin muy daraja ju kawe ahlu badrin ku ne xam na ni saxaaba yi dafa bokkoon ci ndombay tànk wala alqaab dàkkantal yi nga xam ne dañ ko daan darajewoo mooy buñ ne diw ab badri la mooy teewe woon na xasutu badrin Mm. ñooñu suñu borom da leen a mbaa yàlla mënatuñoo jëf lu leen yàlla topp muy daraja ju kawe sëriñ bi nag nee na ci tukki bi la ko suñu borom defale ñu di ko ci limaale di ko limaale ci ahlu badrin mm. ci dëkkaaleeg yonent bi ak daraja ja ñu amee ak jege gu mu jege yonent bi sallallahu alayhi wa loolu wax na ko ci qaddamani quduumu man xad jaau bi bushari wa xaqaqa arrajaau dammat ni al amdaahu wa tawdi wa tawxiidu li jundi muxsi man lahul juhud nee na tagg yi mu doon tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir liggéey bi ak wéetal gi mu doon wéetal yàlla nee na ci la ko sunu borom fabe daal di koy adhéré ci kuréelam boobu nga xam ne mooy ahlu badrin moo tax mu ne adaniya allahu min ahli badrin alayhimu ridwanu muali qadri waaye ci tukki bi la sunu borom doxee digganteem ak iblis ba naaguloo iblis ci ne moom mënatut a yàqal sëriñ bi dara ay yasa minillahu inda jeewali iblisa isnaadaytuhu bi yaawali loolu feeñ na dem na ba nga xam ne iblis bu wàccee ci kaw suuf sëriñ bi xam ne iblis ñëw na ci kaw suuf loolu feeñ na ci ak nekkam ci yéen al googu nga xam ne bi mu nekkee ci yéen sëñ Mouhamadou Silla nettali na ci jawaamiul kalim nga xam ne day wax ne karaamatun zaharat bi hadratina maahu muy zuhuru iblis ca bis boobee nga xam ne sëriñ bi daa julli fajar ci daaru rahman ba wax ña fa nekkoon ne leen su ngeen jàngee kaamil bi ngeen di jàng ma def da ngeen ma fekk daarul xudduus daaru xudduus jolof dafa amoon ñaari kër hmm. daaru rahman ak daaru xudduus hmm. diggante ñaari kër yi nag war naa mat kilomètre genn walla sëriñ bi moom dem daarul xudduus biñ jàngee kaamil ba fekk ko fa mu digal leen ñu jàng foofee alquran nee na génne suukar ak warga ne leen bu ngeen noppee na ngeen ko togg te kenn ku nekk lam ciy naan nag na fas ci ab xolam sunu borom defal ko ab dënnam na ci yéene sunu borom defal ko ab dënnam nekk ndabul alquran nee na bi ñu defee loolu ba noppi sëriñ mi ne leen ku bu kenn génn kër gi te bu bu kenn duggit nañ tëj kër gi bu kenn génn bu kenn dugg nee na diggante bu gàtt rek ñu seen benn waay bu taxaw ci buntu kër gi ñu ngi koy seen ci xar bunt buntu bi mi ngi takk nag ay teqal takk ay bandal ay long-long ci kawam nee na biñ ko gisee melokaan wi lañ xam ne kii laysa min ahli silaax bokkul ci gaa yu baax yi nee na am ci ñun ku jug di wax ak moom waa ji ne ko yow day maa jug sama yitte mooy sëriñ bi laa soxla neena na sëriñ bi dégg ko daal di génn jàkkaarloo ak moom ab diir daal di wax ne fexe leen ba mu dem te ngeen maslaxa ak moom te bu ko kenn teg fitna wala lu ñaaw nee na biñ me biñ fexe ba mu dem nag ba dellu si sëriñ bi ne ndax xam ngeen kooku ñu ne ko déedéet mu ne mooy aduwullahi iblis mooy noonu bi yàlla boobu ñu wax iblis loolu tukkib géej gi la ko suñu borom defale iblis ci boppam naagu ci moom ba mënatu koo yàqal dara loolu it ci jeexit yooyu la bokk naajeytuhu bi yaa nasiru yaa wali kafayta nii iblisa inda jeewali na ci tukki bi sunu borom defal na ko ci diir bi nga xam ne nekkoon na ko baafali sax gam fa sax sunu borom defal ko mu tolloog daraja sax gi nga xam ne moom la saxaaba yi àndoon ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam saxoon ci tartar yi ñu nekkoon nga xam ne lu ñu ca làq ci njariñ sunu borom defal na ko ko ci diir bi mu sax ci baafali lu ñu ca làq ci barke rek sunu borom defal na ko ko ci diir bi nga xam ne sax na ko foofee ci baafali waaye nee na diir bi nga xam ne moom la sax ci barab bi ñuy wax galwaay it ci la ko sunu boroom defale mu tolloog diir bi nga xam ne awliyaa yi ak ulamaul aamilina yi sax nañ ko ci jaamu yàlla gu sunu borom nangu la leen ci sunu borom di defal nee na defal na ko ko ci diir bi saxoon ci barab boobu waaye nee na bokk na ci li ko sunu borom defal ci tukki bi nga xam ne ci azaar yi bokk mooy sunu borom boole ko ci suhadaa yi ci baatin ba noppi boole ko ci ahlu dunia ci zahir nga xam ne kon baatinan moom min ashuhada waaye zahiran nag min ahli dunia nee na loolu sunu borom defal na ko ci tukki bi mm-hmm. nee na bokk na ci it li sunu borom defal ci tukki boobu mooy bind ki ko sunu borom bind ngir mbir moo xam ne du ko tudd ba mukk suma koo tudd te du ma ko tudd ba mukk mhm. waaye du ma dañ nag ci di ci di fàttali ko yàlla ak di ko ci sant nee na am na juróom-ñaari karaama yoo xam ne sunu borom daf koo jagleeloon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na moom ci tukkeem bii sunu borom defal na ko ci juróom-ñaar yooyu boo demee ci irwa un nadim da koy wax danaan wa min asraril ghaybati al bahriya an manna allahu alayya bi sab'i karamatin mu'jisatin li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ba ca njëkk mooy sunu borom notal na ko ay noonam njëkk muy génn njëkk muy génn notal na ko ay noonam ñaareel bi sunu borom may na ko ci xam-xam boo xam ne bàyyi ko cim njàng ñetteel bi nee na sunu borom da yonente bi alayhi salaatu wa salaam dana puukarewante wu ak mboolem anbiyaa yi ci sama liggéey bi ci sama tukki bii liggéey bu sell bi ma ko ci liggéeyal dana ko xëllamtoog mboolem anbiya yi ñeenteel bi mooy sunu borom def na ci xolu képp ku nar a texe képp ku texe ak ku nar a texe nga ëmbal mag cofeel juróomeel bi mooy sunu borom naaguloo na iblis ci sama mbir ak képp ku ànd ak moom iblis ak képp ànd ak moom sunu borom naaguloo na ko ci sama mbir juróom benneel bi mooy sunu borom soppuloon na ma al kiram def na ci seeni xol ñu sopp ma juróom-ñaareel bi mooy mboolem jinne yi nga xam ne gëm nañ yàlla te di ay jullit sunu borom def na ci seeni xol ñu sopp ma te ñi ci jamonoon teeg man aju nañ ci man loolu sëriñ bi da koo da koo da koo tënk ci wa fiya sab'u mu'jizatin lir rasul qad zaharat wa qablaha fustu bi zuul galaba bil muxtaari rabbi lil ida qabla zuhuri la ulaaqi man ada wahaba lii rabbi ilman lam yakun min attaallumi wa jaani bikun baaha rasulullahi kulla al anbiya alayhimu aska salaamay rabbiya bi gurbati ashra sinina bi xidam xaalisatan li dil wujudi wal xidam yuhibbuni li wajhi rabbi al muid bi gayri bugdin abadan kullu said ayasa rabbi abadan wa huwa al muin iblisa minni wa kaza kullu lain yuhibbuni malaa'ikul baaxil xadiim li wajhi li wajhi maa falaahin laa yarim xad waddani man aamanu fil jinni li wajhi baaxin kaana li bil manni ci beneen barab bi yataallaq alladina aslamu min jinni asri duna man lam yuslimu muy juróom-ñaar yoo xam ne nee na sunu borom mi ngi ko ko jagleel ci tukkim boobu waaye nee na ci tukki bi la ko sunu borom defalee mu am ci ngërëmul yàlla am ci ngërëmul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am ci ngërëmul alxulafaa al arbaa am ci ngërëmul al aqtaab asalaasa am ci ngërëmul almuqarrabuun nee na ci tukki bi la ko sunu borom defale loolu loolu it junj na ko ci minni ilayhi xidmatun qad laasamat rawdatuhu ila alqiyaami adumat radiya anni sibtuhu aljilaani alayhi ridwanu alladi alaani al aqtaab asalaasa mooy abdulqadir jeylaani abulhasan assaasali eh, ci ahmad tijaan sharif radiya anni sibtuhu abulhasan alayhi ridwanu yuxallidu alhasan radiya anni sibtuhu tijaani alayhi ridwanu mubidil jaani alxulafaa al arbaa radiya anni alxulafa al arbaa xustu rida almuqarrabina almutbaa man lam yakun anni yarda falkarim radiya anni ridan laysa yarim kon ñooñu nga xam ne ñoom rek ñoom ñoom la seen ngërëm am solo mu yàlla ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam alxulafa al arbaa ak ñooñu mu lim nee na ci tukki bi la làqi seen ngërëm loolu mooy asaar yi nga xam ne mën nañ ko tënk ci sëriñ bi mm-hmm. yu mujj yi nag muy asaar yi nga xam ne moom day dellu siwaat ci mm-hmm. umma islamiya bépp wala mën nañ ne mën nañ ne jullit ñëpp bi sifa amma waaye nag sénégalais gépp sénégal gépp nag bi sifa xassa loolu mooy dañuy gis ne sëriñ bi ci biir tukki bi mi ngi doon ñaan boromam ay mbir yoo xam ne bu ci jëlee ñaari bayit man cee taxaw liñ soxla lépp feeñ ci ijal ruju'i ila qawmi saadatana wal takfina yawma jamiil xalqi niiraana muy ñaan gu am solo goo xam ne daañu ci ñëw liikun bikum sarmadan wajal masir yasa jawfal fara lil wara misla al maharini dañuy gis ne ijal rujuu'i ila qawmi saadatana wal takfina yowma jamii al xalqi niiraana sëriñ bi dafay toroxlul boroomam di ñaan mu dogalal ko ak delluwaatam cim réewam waaye di ñaan dellu siwaat gi nag doon texek aw nitam adduna ak àllaaxira waaye doon seenu mucc yit ci sawaraw àllaaxira wala ayaasu billah suñ borom nag nangu na ñaanam googi ci ndimbalam moom yàlla aku tabam ak tedd nga am xëy na ku mel ne Serigne Moussa Ka mën nañoo wax ne junju na lool mën naa am loolu la bëgg a firil murid yi ndax gis nañ ne sëriñ bi li Serigne Moussa Ka hmm. wax na ci barab yoo xam ne Euh, dokonto nag dem gi wolof nasaraanu te kon billahi ñëpp dem niiraanu mhm. kon demuk sëriñ bi dox na suñ diggante sawara wala ayaasu billah mhm. te lu dox sa digganteek sawara rek jural na la muccuk adduna ak àllaaxira mhm. loolu it des na ko layal ndax doo jekki-jekki rek ne dokonto nag dem gi wolof nasraanu te kon billahi ñëpp dem niiraanu léegi bu dem gi amutoon lan mooy tax nit ñi nasraanu ba loolu di leen yóbbu niiraanu day mel ne bu nag tukkib géej gi day mel ne li ñuy tudde achabu sénégal yi maanaam colonialiste yi dañoo taxawoon ci tansir leen dañoo taxawoon ci def leen ay ay ay ay ay ay nasraan du nag soppi leen ci yu baree bari waaye ñu leen soppi ci yii nga xam ne moom képp ku ci mas a soppi ko sëriñ bi jàppale ab mutanassir te loolu sunu borom mi ngi leen ko mi ngi leen mi ngi leen ko fegere ci alxaybatul bahriya mm-hmm. loolu moo dox seen moom ndax ku ne xam na ni réew mi dafa tolloon situation boo xam ne li ëpp ci boroom xam-xam yi fi nekkoon ak ñi mokkaloon alxuraan nga xam ne ci ñoom lañ doon yaakaar baax te ñoom la yàqu gënoon a bare hmm. ci jamono boobu nga xam ne ci la sëriñ bi ñëw jam suñ Musaa Ka junj na ko ci yeneen barab hmm. góor ñi jigéen ñi dax jaxasoo di caaxaan lamb ji góor sabal ñëpp jaaxaan kenn amatul xasdu li wacc yi kaa nga kii fóore fas di jaani laahi lislaam ni jooyu yëkkat ba génn gàddaay ci soowu jant fépp mel na làmbaay Cheikh Bamba daal di ñaan ci barke jiini ne yàlla maay shafiu kulli jiin maay xaadimu rasul fi soudaani maay ramu xarnul ani niiraan mm-hmm. continuer ba muy kon day mel ne situation maanaam bi nga xam ne ci la bi ñëw fekk na boobu réew mi mi ngi situation boo xam ne ku mel ne moom bu amutoon tubaab bi dana sotti lu waa réew mm-hmm. te loolu mën na leen yóbbu sawara wala iyaasu billah ndax booba amul kenn ku mën a taxaw jàkkaarloog tubaab bi ngir contrecarrer li nga xam ne moom la bëgg a implanter ci askan bi sëriñ bi nag moo jug jàkkaarloog moom ngir loolu dañ sëriñ bi nag dañuy wax ne moom déggiin wi am ci tanassur wala tansiir maanaam saa bu ñu waxee ne dafa nasraan day delluwaat ci ki nga xam ne dafa bëgg a jël civilisation occidentale dafa bëgg a jël seen culture dafa bëgg jaar ci seen man maanaam ci seen méthode jëlit seen philosophe ñooñu donte ak jullit la nag boo xam ne ci yooyu la jafandu kooku moom sëriñ bi da ko jàppee mu danas boobu nag doomi soxna yi fi nekk ak borom xam-xam yeeg ñëpp ci maase tubaab bi ñëw na ba samp fi ñu fi bëgg a samp ba ñu baree bari jàpp ci loolu mooy ijal rujuu'i ila qawmi saadatana wa takfina yowma alxalq yowma xalqi yowma jamil xalqi niiraana sëriñ bi nangu suñu borom nangu ak ñaanam mhm. dox diggante nit ñi ak lépp lu leen di gàllankoor ak lépp luy tax ñu dox ci mhm. méthodologie occidentaux yi mhm. ak lépp luy tax ñu jël seen philosophe sunu boroom dox diggante nit ñi ak lool baytu ñaareel wii nag di liikun bikum sarmadan wajal masir ya sa jaw falfara lil wara mislal maxaarini sëriñ bi da ci ñaan boroomam ndimbal lu sax dàkk ak dëgëral gu ko sunu borom di dëgërël jamono bu nekk ak saa su nekk wajal ma siriyasa likun bikum sarmadan kon mm-hmm. nekkal ma mm-hmm. mi ngi ñaan sunu borom di ko nekkal jamono bu nekk waaye mi ngi ñaan it tukkeem bii nag nga xam ne mooy alxaybatul bahriya sunu borom def ko mu nekk jaamiatun lil xayraati wa salaax awal masaalix na doon tukki boo xam ne lépp luy aw yiw tukki bi da koy ëmb lépp luy intérêt boobu adduna wala boobu àllaaxira tukki bi da koy ëmb lépp luy njariñ tukki bi da koy ëmb nga xam ne day nekk lu doy loo xam ne bu sëriñ bi jógee ci tukki bi aw nitam moom danañ doyloo loolu ba dootuñ soxlaati dara comme ni ko ko suñu borom defale nii nga xam ne képp ko aju ci moom soxlawoo lenn lu dul soxlawoo maanaam lenn lu loo xam ne bokkul ci mbirum sëriñ bi lu sëriñ bi amul rek suur nga ko jawfal fara lil wara mislal maxaarini kooku moom aw aw aw aw la woon woo xam ne dañuy wax ne min min aqdami wa ashhari al masal allati arafaha al arab kullu saydi fii jaw fil fara yonente bi alayhi salatu salaam defoon na ci istishhad ci fatxu makka bi abu sufyaan ñëwee di wax ak yonente bi alayhi ne ko anta ya aba sufyaan saydi fii jaw fil léeb la woo xam ne mooy koo xam ne am na loo xam ne soxlaatul dara dafa am ñett ñu mas a ànd di rëbbi kenn ki jàpp ak lëg ki ci des jàpp ak kéwél ki ci des jàpp alximaarul waxshi léegi nag boroom lëg gi ak boroom kéwél gi tàmbuli ñoom ñuy reetaan boroom alximaarul waxshi mu di leen xool ba yàgg mu ne leen kullu saydi fii jaw fil fara lii ngeen yor daal sama sama sama mbaam mii ma yor mën na ne tandiix wann lëg gi mën naa wan di kéwél gi ñaar yëpp dugg ci biir kon li ma am moo ëpp doole li ngeen am arab yi nag jël masal wow di ko léeb ci nit ki saa bu fekkee dafa am yitte ju mag am yitte ju ndaw su yitte ju mag jekk fajoo rek amatu soxla ci yitte ju ndaw ci sëriñ bi nag di ñaan boromam tukkeem bii sunu borom def ko muy faju aajo joo xam ne day mel ne jaw falfara jaw falfara daañu wax ne sax mooy koo xam ne su dee rëbb ba am ko soxlaatul dara ci àll bi maanaam rab lay doon woo xam ne saa bu ci rëbb bi jotee soxlaatul dara ci àll bi mu doon nag loo xam ne tukkeem bi bu ñibbisee képp kuy ab jullit dana la doy ba dootu soxlaati dara loolu la sëriñ bi di ñaan ci liikun bikum sarmadan wajal masir yasa jawfal fara lil wara mislal mahariri waaye mu amit nag ay ambition yoo xam ne junjoon naa ko ci njëlbin dafa aju ci wàllu ruux nga xam ne sëriñ bi dafa taxawoon temm ci ambition yooyu nu mu sottee te ci tukki bi nag la ko ko suñ boroom nga xam ne kon tukki bi dafa nekk xetal adduna ak àlaxira moom la sëriñ bi di wax ne wa fi tilka sinina alxams maanaam juróomi at yooyu sirtu ka chamsi diyaan wa rifata qadrin wa intichara nafin muy benn loolu bëgg-bëggu sëriñ bi la woon ñaareel bi it li bëggoon mooy noon bi nga xam ne ku dëgër bopp la sëriñ bi fexe ba pexe yi nga xam ne mi ngi koy fexe ci réew mi te mooy naax saayal lislaam pexeem yooyu moom échec loolu it suñu borom defal na ko ko waaye bokk na nag ci asaar yi nga xam ne yu gën a fés la ci tukkib sëriñ bi mooy alxaybatul bahriya mooy li ñuy tuddee sulta diiniya moo féete kaw moo gën a am pouvoir li ñuy tuddee sulta siyaasiya ku ne xam na ni ci jamonoy sëriñ bi moom sulta siyaasiya bi moo not diine ji mhm. looloo waral moom ñu jaay ko doole génne ko exilé ko mhm. waaye ba mu liggéeyee ba ñëw nag ci la sulta diiniye bi féete kaw sulta siyaasiye bi loolu jàpp naa ne ko xam dara ci histoire mhm. Sénégal dana leer ci sa bopp Senghor mi nga xam ne moo fi njëkk a nekk président de la république ginnaaw bi ñu amee indépendance bi mu fiy jógee bokk na ci li mu dénkoon ka ko doon wutu muy Abdou Diouf mu bàyyi xel diine ji rawatina yoonu mu murit nga xam ne jamono bu nekk moom dañuy xam ne dooleem moo féete kaw sulta bi mi ngi amee ci alxaybatul bahriya bi ndax lu jiitu muy dem moom booba loolu amul booba tubaab bee fi nekk samp ay nitam kuñ jubóol samp la ci barab def la def la njiit jox la ay ordre ngay wéyal kuñ jubóolut seet nuñ la sàkkale pexe te yoon wi nga xam ne ci la loolu jaar ba sulta diine ya ëpp ëpp doole ci réew mi sulta siyaase bi nga xam ne loolu dox na sun digganteeg li tubaab bi bëggoon ci ñun mu am ko mooy sëriñ bi dafa jëmbat ci xol yi waa réew mi ñu gëm ne te taalluq ci boppam dafa bokk ci waajibaat diine yi loolu li ëpp ci sax nag jullit Sénégal loolu mooy seen gëm-gëm nga xam ne kon ñi nga xam ne ñoo yor sulta siyaase bi li ëpp ci ñoom dañuy bokkaat ci sulta diine bi loolu damay wax ne misaal mi gën a jege mooy tubaab bi nga xam ne moo fi jëlewul sëriñ bi ndaw yi mu fi teg ñoom ñi nga xam ne ñoo leen di saytul seen sécurité toujours da gis ay jeexiit yoo xam ne day delluwaat ci ne ñoom bu leen diine soxla woon ñu bàyyi lee dafa am màggalu Touba goo xam ne yaakaar na 88 la boo xoolee da nga ko gis sëñ Sam Mbaye jamono bi muy waxtaan ñi nga xam ne ñoom lañu indi ngir ñu sécuriser mbooloo mi muy takk der om homme de tenue yi ñoom dañoo taxaw tiim ko waaye li muy wax sëñ Touba day wax ba yàgg ñoom au lieu que ñoom ñu lijjanti circulation bi waaye ñoom ñoo tàmbali nag di daanu ak a mbëkk am na bu yëgul Ndakaaru ci jamono sëñ Saliou gii problème bu amoon diggante murid yi ak beneen kuréel xam naa xeex la woon kilifa gi doon régler problème bi mi ngi fi dama dul xam ba xam tuddul turam dana ko neex xam du ko neex waaye bi mu demee di régler problème boobu bay waxtaan ak ñoom sécurité bi ñu indi woon nga xam ne daanaka moo ëpp mbooloo ma fa nekkoon moo mujj ñoom ñoo jaxasoo nga xam ne jëlli ya ak jafe-jafe ca ñoom la mujj dellu loolu kon day gën a dëggal li ñuy wax ne bokk na ci jeexiti tukkib géej gi sulta diiniye bi ëpp doole sulta siyaasiye bi ndax ñene ca kaw tey bu fekkonte ne kii nga xam ne moo ne ci sunu kanam di Cheikh Mahamadul Muntaqa yàlla na ko fi sunu boroom yàggal te dëgëral ko kàttanal ko bay naa leen yëpp àgg bu xëyoon xëy soxla képp koo xam ne da nga taalluq ci sëriñ bi tam doon dëgg ci yaw yeneen këri diine it kenn ku ci nekk soxla ña nga xam ne dañu aju ci yow jàpp naa ne président de la république moom bu soxlaa ña muy gis du bari jàpp naa ko lool mm-hmm. bu fekkee kilifa yi maanaam wooteel nañ seen bopp jël seeni responsabilité moom jàpp na la am du bari boo moytuwul moom day bokk ci ñuy wuy ji bu fekkee lam wax moom saxal na ko moom nga xam ne nañ ko déggee noonu la demee moom day bokk ci ñuy wuy ji du mën a woote kon loolu ci hasard yi la bokk loolu nag contrecarré na kon li tubaab bi bëggoon moom ngir mu mën a am ci réew mi dana jafe xëy na bu bu yàqute amee nit ñi ñàkk fayda rek ak seen i jikko yàqu waaye tubaab bi moom réussir suñ bi dox na digganteem ak la bëggoon ba dara amu ci bokk na ci it hasard yooyu sëriñ bi ci waa réew mi ñu am indépendance ci wàllu ruux ndax ku ne xam na ne lu jiitu sëriñ bi di woote al muri al muridiya rek mooy tarixa bi nga xam ne al wirdul maxuus mooy wirdu bi nga xam ne fii la juddoo mu jële ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nekk doomu réew mi lu ko jiitu luñ soxlaati dañ koy wuti ci bitti donte nag ñañ koy wuti ci ñoom ay nit yàlla lañ ñu baax lañ waaye sëriñ bi bi mu dikkee mooy libéré nit ñi ba nga xam ne li nga soxla mën nga ko am au lieu que ngay génn réew mi ci sa biirum réew man nga fi am sayxul murabbi mën nga fi am sayxul tarqiya man nga fi am koo xam ne daf lay eggale ba ci sa borom loolu ci azar yi la bokk te mi ngi ko amee ci tukki boobu waaye bokk na ci nag li gën a fés ci azar yooyu muy bis bii nga xam ne moom la ñuy waajal muy màggalu Tuubaa gi mhm. ku xam na ne moom bu tukki bi amutoon moom duñ màggal mhm. màggal gi nag li ci juddoo ci ay intérêt ci wàllu ruux nga xam ne buñ tollee ci jamono bii jataay bii ci la bokk waa Muxaddamatul Xidma di ko organiser mu doon ay jataay yoo xam ne jataay yu mu lay doon boo demee ci Rawdu Rayaahiin ñuy organiser yu mel noonu boo demee ci Xuratul na ci waa kër Sëriñ Shuaybu ña ngay organiser lu mel noonu boo demee ci maktab bu Cheikhul Khadim bi daa di daaree kaamil ña ngay organiser yu mel noonu ak ñeneen ñi nga xam ne ñi ngi ci yeneen barab di organiser yoo xam ne dafay dundal ruux ndax ku ne xam na ni ruux ak xel ci xam-xam yàlla la dunde bu màggal gi jub see nag li nga xam ne daañu ko organiser ci yoo xam ne nit ñi dañ danañ ci dolli koo kenn xamul nu mu toll mënuñ ko am ci weneen weeru wu bokk ak weeru màggal kon loolu benn njariñ la ci njariñ yi nga xam ne màggal gi dafa koy jural doomu aadama yi waaye li ci juddoo it ci wàllu culture li ci juddoo ci wàllu culture kenn xamu nu mu toll li ci juddoo ci wàllu économie économiste yi ñoom wax nañ ci ba tàyyi màggalu Tuuba li muy li muy li muy jariñ gisuñ beneen événement boo xam ne dana ko jur ci wàllu économie mu njariñ loo xam ne njariñul réew mépp la nag ci domaine yëpp secteur boo dem rek bu màggalu Tuuba dikkee économie ba dana ca relancer wu waat waaye li ciy juddoo it ci wàllu social fii rek mooy fi nga xam ne mooy dajale mbooleem këri diine yi ci réew mi benn événement la ci Sénégal muy màggalu Touba mbooleem këri diine yi ci réew moom moo leen dajale waaye li ciy juddoo it ci wàllu politique gis nga euh, ndawi politique yi maanaam parti politique yi li ñuy bari bari màggalu Tuubaa bu dikkee moo leen di dajale ñoom ñëpp ci benn table ñoom ñëpp moo leen di recevoir ci benn salle ñoom ñëpp moo leen di dalal ci anam goo xam ne bu dul màggalu Tuubaa loolu mënta nekk loolu nag li mën a régler dafa bari kon day mel màggal gi bokk na ci azar alxayba albahriya yi waaye moom bari na ay masaalix yoo xam ne doyoon na misaal ci ñu waxtaane màggalu Tuubaa ak li muy jur ci ay masaalix ñu wane ne loolu azar la min azar alxayba albahriya kon day mel ne mhm. euh, ci niñ ko doon tënkee rek mhm. euh, avare yi du jeex mhm. waaye dañ cee jubloo na tënk yenn lennat li mooy jaaxleeg njaboot gi ginnaaw bi fi sëriñ bi jugee lennat li mooy li nga xam ne ci tukki bi la juddoo kon ci tukki bi buñ ko doon résumé dañuy wax ne abdullahi wa xadimu rasulihi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi ndomb ak tànk googu mi ngi ko amee ci alxaybatul bahriya loolu doy na sëkk jeexit waaye alquran ak la ca aju cër bi mu ci am te ne suñu borom jox na ko ko mhm. mi ngi ko amee ci alxaybatul bahriya mhm. awraad yooyu yu ma junjoon léegi ak alwirdul maaxuus mhm. mi ngi ko amee ci xayba bi muy xidma bi bu ñu nee xidma bi nag dañoo tënk rek alxaybatul bahriya waaye alxaybatul barriya ci la bokk ndax xidma bi moom day boole ñaari tukki yëpp muy tukki géej ak tukki tukki Muritani bi loolu ci la ko amee ak yi nga xam ne nag fàggul nañu ko ñun njaboot gi te ñaan ko boromam ba boromam may ko ko te loolu ñu tënk ko ci ñaari bayit yi nga xam ne tudd naa ko léegi muy ijal ruju'i ila qawmi saadatana wal takfina yawma jam'il xalqi niiraana ak liikun bikum sarmadan wajal masiriya sa jawfal faralil wara mislal maharini loolu day wane ne kon ñun li ñuy jariñoo ñun ci tukki bi la bàyyi ko waaye même li ñuy jariñoo ci sëriñ bi nga xam ne moom muy wérdu yi nga xam ne ci liñ ci moom lañ ko jëlee am daax ak wéetal gi mu doon wéetal yàlla ak lam jële ci boromam ci alquran ak lam jële ci boroomam ci doon jaamu bi yàlla ak liggéey bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu mën caa ballalu ñun jariñu ca loolee loolu moom sëriñ bi ci tukki bi la ko amee kon day jeexit yoo xam ne dafa wàcc ci sëriñ bi jàll si ci ñun am ay hasard yoo xam ne nag jaarut ci sëriñ bi waaye sëriñ bi da ñaan mu jóge ci boroomam dal ci suñ kaw yooyu nag buñ ko doon lim du jeex kenn xamul nu mu toll ku dul yàlla mi nga xam ne moo ko fayee cheikhul xadim radiallahu anhu kon ñu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala xam naa guddal nañ waaye ñi ngi ñaan bis bii nga xam ne daal ñi ngi koy séentu ni ma ko waxee woon ci njëlbeen mhm. yàlla na ci àgg ak jàmm tey ni boromam bëggee ku ko dundale noonu mhm. yàlla nañu yàlla defal tawféex yi yëngu ya ñuy yëngu ak jéem ga ñuy jéem mu dëppook dëppoog noonee mhm. ndax borom daana ko defal boppam sàkku nañu defal ko ko am na nu ko bëggee nam ko bëggee nag ñu xam ko ñu ñàkk koo xam dañuy ñaan yàlla mu dimbali ñu ci ba bu ñu mu dëppoog na mu ko bëggee te ñu làq ci ngërëmam di delluwaat di sant waa daairatu muqaddimatul xidma di sant sunu mbokk sëriñ May Jeng di ñaan borom bi subhaanahu wa taala jataay bi yàlla bu mu doon sunu jataay bu mujj kàddu gi it mu gudd mu gàtt yàlla ñu ci sunu borom boole jëriñ wa axiru daawana an alhamdulilahi rabbil alamin wa salaamu aleykum wa rahmatullah jërëjëf sëriñ Cheikhouna Bousso Cumbuleen ñoo ngi lay sant bu baax a baax euh, nan ñu waxee waxtaan wi jot na mat na te leer na te li ëppoon solo mooy tomb bi ni ko waa daairatu muxaddamatul xidma ko woon am nañ ci ba am ci lu kawe suñu njort ndax li ëpp solo mooy dajale tomb bi nga xamante ni jox nañ ko ko man ci génne loo xamante ni bu nu noppee mënees na koo mën a jariñoo kon sëriñ Seexuna ñoo ngi lay sant bu baax a baax waxtaan wi nag kenn mënu see dellusiwaat ndax suñ ci dellusiwaatee mel na ni leeraay bi dafay ëpp solo sax ci leeral bi nga xamante ni bëgg nañ koo teg ci ginnaaw bi ndax tënk ko ci tënkin woo xamante ni ci ñaari tomb tomb bu njëkk bi mooy niñ ko laltaaye woon bu njëkk bi mooy sëriñ bi bi mu fi jógee tubaab bi yóbbu ko jële ko fii yóbbu ko ci tukki bi mag ñi jaaxle gi nga xamante ni amoon nañ ko ci ñoom leeral na jaaxle gi nga xamante ni def na ko seen biir waaye ci yar gi nga xamante ni sëriñ bi yaroon na ko ak njabootam tàggat leen ci xamal leen ni leen lépp loo xamante ni maa ngi leen koo bàyyee bu leen ci jaaxle maa ngi dem liggéeyi waaye maa ngi leen fi fekkaat loolu nag misaal bi ci gën a am solo mooy exemple bi mu ci joxe ci soxna Fatou Issa Diop kon loolu tamit lu ñu war a jàngal la ci sago si nga xamante ni. ku dib jullit war na koo am waaye ku dib taalibe tamit war nga koo am ndax mel na ni sëriñ bi bi mu demee su fekkeen bàyyi foon njaboot goo xamante ni am nañ ak dal am nañ ak sago jaaxle dina dikki ci ñoom kon loolu tamit bind bu ama am solo la suñ seexu naa ñoo la ci sant bu baax a baax ci fàttali googu waaye naka noonu tamit leeral na sëriñ bi tukki bi bi mu ci demee njariñ yi nga xamante ni mel na ni budul woon moom duñ ko amee ci tukki bi tukki bi moom ginnaaw dogalu suñu borom bi mënu woon ñàkk ndax yu bari yum ci tudd leeral na ko dëkkaale gi nga xamante ni sëriñ bi dëkkaale na ko ak yàlla suñu borom subhanahu wa taala mu mujj nekk wéeruwaayam ak naka noonu tamit maanaam dëkkaale gi nga xamante ni dëkkoo na ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba yonente bi sallallahu alayhi wa def ko mboolem ñiy liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi sëriñ bi nekk seen kilifa mooy asna xadim loolu mel na ni ci biir tukki bi lañu ko amee waaye naka noonu tamit yàlla suñu borom subhanahu wa taala dogal boole ko ci waa ahlu badrin te ku ne xam na ni bokk ci ahlu badri ab garaat la waaye ku ci yàlla suñu borom subhanahu wa taala boole rek mel na ni loolu kenn ci ñi nga xamante ni ñoom la ko yàlla jigale muy Cheikhuna Ahmadul Xadim te loolu mi ngi ko amee ci biir tukki bi kon mel na ni tukki bi mënu woon a ñànk li nga xamante nag sëriñ bi moo ko ñaanal njaboot gi te ci biir tukki bi lañ ko amee muy ñaari bayt yi nga xamante ni tudd ko muy ijaar rujuu'i ila qawmi saadatana ak lii bikun sarmadan waccal masire sa jawfal fara lil wara misal maharin kon mel na ni am na coo xamante ni sëriñ bi moom moo dem liggéey ko faggul ko boppam loolu sëriñ bi leeral na ko waaye leeral nañu tamit loo xamante ni sëriñ bi moo ñu ko ñaanal mu wàcc ñun kon mel na ni moom sëriñ bi liggéey na waaye ci biir liggéey tamit sóoroon na taalibe kon mel na ni sëriñ bi moom dafa dafa gore ndax manoon na ni mënoon naa liggéey rek waaye njaboot gi mu bàyyi ginnaaw fàttewu leen ndax su fekkoon ni fàttewu leen duy tudd ni ijan rujon xaw qawmi ndax ku ne xam na ni ila qawmi mooy mooy ci sama ñoñ kon yàlla nañu ko yàlla fayal naka noonu tamit wax na bi nga xamante ni sëriñ bi tëkk bi li mu jur ci wàllu li nga xamante ni bàyyi woon na ko fi nga xamante ni muy tomb bu ama am solo mooy sulta diine bi ni mu féetee kaw sulta siyaasa bi te loolu moom dañ koy gis ba ilaa yawmina haza exemple bi ci mujj rek li nga xamante ni diggante ay at yu yàgg amoon na diggante ñaari njiitu réew yoo xamante ni lu mat juróom-ñaari at mënuñu woon a toog ci benn jataay Cheikh Mahamadul Muntaxa moom moo ko def te loolu mi ko jële ci maanaam sulta diine bi féete kaw gu mu féete kaw surtout siyaasa bi ndax loolu ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci euh, état bi jéem nañ ci lu nekk waaye kenn ci njabootuk sëriñ bi muy Cheikh mu Muntaxa yàlla na fi yàgg loolu te wér moom moo fexe ba réussir lool kon loolu bokk na ci li nga xamante ni asaar la yoo xamante ni tukki bi moo ñu ko may waaye bu mujj bi mooy bis bu màgg bii nga xamante ni lépp lu ñu am ci moom lañ ko amee muy màggalu Tuubaa gi liñ ci amee ci jataayi xam jataay bii ci la bokk yeneen jataay yi naka noonu waaye ci wàllu économie waaye naka noonu tamit ci wàllu économie liñ ci amee suñu xooloon màggal waxuma sax li ñuy tudd waaye ci biir àdduna si kenn ku ci nekk li nga ciy amewaat sur le plan mondial mel na ni màggal bu amul woon maanaam économie Afrique mel na ni màggal gi moom moo ko yëkkati kon loolu mel na ni sëri ci la boo xamante ni ñi ngi ko amee ci tukki bi nga xamante ni moom la sëriñ bi tukki waaye nag fi mu daaneel kàddoom mooy li nga xamante ni sëriñ bi am na ko mooy abdullahi wa qadimu rasulihi kon mel na ni su amul woon loolu du am kon mel na ni ay jeexit yu ama am solo tukki bi am na ko kon mel na ni jaaxle gu mag ñi amoon rek bi sëriñ bi ñibbisee jaaxle googu mel na ni sëriñ bi ëndaale na xéewal goo xamante ni mën nañ ci jariñu ba ila ba keroog àdduna yi tukki kon su ko defee mel na ni jataay bi li ci ëppoon solo Serigne Cheikhouna Bousso cumb cumb leen leeral na ko wax na ko muy ay bind yu ama am solo mel na ni tukki bii sëriñ bi tukki su fekkoon ni tukkiwul woon mel na ni li ñu am tey duñ ko am kon yàlla nañu ko yàlla fayal ba lépp loo xamante ni liggéey na ko fi ñun ñi nga xamante ni ñun la fi bàyyi ñu sàmm noonu li nga xamante ni moom la ñu sëriñ bi bàyyil te sàmm noonu li kat dara raw ci mooy lii nga xamante ni daayira muqaddamatul xidma mi ngi koy liggéey li nga xamante ni sëriñ bi jëf na ko mu di ñu ko fàttali kon lépp loo xamante ni wax nañ ko fi rek yàlla nañu suñu borom subhanahu wa taala defal dégg ak topp jataay yi nag suba insha allahu taala des na ko continuer ci jataay boo xamante ni mel na ni ñaareelu jataay bi nga xamante ni daayira bi nañ ko amal muy tomm bu am solo muy jaayante ak importance bi mu am ci dundug murit gi te ku ne xam na ni lii ñu doon wax dafa am ak jokkaloo ak tomb suba bi kon duñ ci sori incha allahu taala ñu ñaan yàlla yàlla ñu fekke loolu ñu beneen jataay wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu